neexul ba neexul mais man li may tëgg tamit doy na waar de lii moom wax dëgg yàlla neexul man man man lan moo may bëgg a dal doomu géer bu tol ni man ah xalaas ma yaakaar ni man xanaa kon cóol mi moo moo moo desee neex ah ah moom du dem lii moom du dem moom man tax lii may tëgg man ci boppam leen koy tëgg xam naa ne neexul xam naa ne tegul ci temps programme bi ñëw na ba pare daanaka daanaka rek ay jour rek moo ci des booy yi moom ay défaillant lañ daam daam daam waaw ana salaam ana salaam salaam waaw waaw waaw pardon waay booy waaw non dama indi indi benn pièce rek ngeen ngeen ñëw am na ngeen ma jàppale yow tey lu xew. waaw demal rek demal rek te ñëw booy indi leen benn benn pièce rek na ko indi benn pièce. dëgg la moom benn pièce tàmbali ngeen may jàppal lu ndaw rek dem leen te ñëw. formel sama waaw. booy def leen lu gaaw waay. maanaam cool mi ni mu neexee te man li may tëgg man li may tëgg man son man son ma waaye du cool mi de moom très bien waaw yow peese heure bi sax laa xamul loo xam boo may doyee peese. li ko waral laa leen di wax xam nga yàlla dafa def bi ñu doonee ay doomi géwél. yow ci nga bokk yow. da nga may déglu quoi bu ma jaay affaire da ngéwélee sa ngéwélee yu foroxee da nga koy denc waaw. waaw léegi yàlla def euh, lu waay waxadi waxadi boo gisee ne ne ne na te car macha allah li ngeen di tëgg neex na trop. yow maam fan nga jëm fan nga jëm fan bon léegi nak dama dama mon programme sama anniversaire bi yéen ngeen ko si mbedd bi waaw mais booy booy mbedd mi information la d'accord koy bon léegi ñun ñu ay rak bisu programme bi ma def 3 pièces bu baax taxaw ci kanam yeen ngeen nek samay côté comme ni rek ñun ñet ñi ni ñu ko defee ni ñu togué ko ni def première partie mu ne mané comme ni mu démé ni rek ñu ñu jouer première partie bi ñun a yow wa xam nga loolu day graw ah xam nga loolu aduna la garaaw dafa wax quoi yag da la wax ki dafa soxorom waaw non boy wuy ma faaw ngeen comprendre fa may waxee ndax xam nga yeen ñi leen tek sok dafa bari yeen fi ne tëggat yëpp a ngi leen di baye xel ndax ma sha allah da ngeen amat mais problème bi bi ci nek mu doon lu ndaw ki du problème sax du problème. dar du problème ci yow. waaw xam nga temps yi li ngeen di teug dafa graw nga ci lu graw ndax ndax ma ngi teud ci néeg bi léeg dama leen deg ngeen di teug ay bakki graw yu neex legi nak comme innovation dafa am ma bëggoon seen bakki yoy ngeen jox ma ci su ko fay bu jour ba ñu mën ko teug xam nga man daanaka yi lima ci faral di yëngu wu mais nak man nako car ma sha allah té do mën yow cool man man man na teug mën dang ko wéd da nga koo teug daaw daaw may ko mu ñew wa boy boy ñëwul ñool a ñëwul booy man mënu laa njëkk a juddu ci kër man ba may tëgg booba tëggoo daam bis bu ne ma wax la sama mëna teug yow gisuma ko wa waaw d'accord d'accord man nga ko bañ gis légui salam li bëggoon moy xam mhm. nga légui bakki gaay dañuy dañuy innover bis bu nekk maa ngi leen di dégg ngeen di créer ay bàkk yu garaaw léegi nag bàkk yooyu laa bëggoon ngeen jox ma ci su ko defee man ma man ma capturer ko ma man ko su ma ko mënee bis baa bu ñu taxawee man kon nii laay def jël cool mi teg ci kanam ngeen nekk sama sama sa sama côté. Euh, yow grand mën naa la mën naa laa laaj benn question. waaw yow grand yow ndakate yow da ngay nekk si kër gi yëpp ñu ànd ak yow nekk si kër gi yow yeewu bu dégg bëccëg. ku new grand yow ni nga nekk ci kër gi di xëcc ay affaire géwal ndakateewu amoo benn bàkk boo xam ni war nga koo mën a jàpp sax jox ñu ko ñun ku new grand amoo bàkk yow booy am na ay bàkk ay bàkk bàkk yi xew léegi yi ngeen di ah. tëgg laa bëgg grand kaa ci bàkk bi nga ma dégg la man ci yow laay rootee man booy fa laa bëgg déglu salaam teg maa a xeeb non grand kaay rek wax dama lay wax rek ah, ñoo dëgg kay defar rek eh, déglu man mooy tëgg tëggu leen ah. yow loo tëgg ni yow it nag. <laughs> yéen li neex na booy bàkk bu garaaw laa tëgg. moo gannaaw yaa ngi weere waay. waaye moo moo moo. yow gannaaw nag ko man li ma nekk ci néeg bi yëpp yow yaa doon tëgg lii. waaw mais booy li may li may tëgg dafa baaxul. yow lii di temps alma sama alma noonu euh, hmm, xoolal rek. Hmm. àddunaa ngi nii. xam nga luñ la pëlee rek wan yooyu yëpp bu ci mereem na grand waaw non non non man ngeen xool ci programme bi waaw mais kon nag kon nag nga ñu bàyyi ñu def waaw waaw def leen booy def leen euh, waxuma la nag bàkk bu gudd ba nga joxoon ay programme yi man damaa bëgg boo may jox nga may jox ay bàkk yu gàtt na yomb rek nag waaw dinaa waaw man ba léegi nekkaguma ci yow maa ngi ci waaw booy base de téléphone bi da nga wax man ni nga defoon korog ba sama papa di la ko base de téléphone bi dañuy wax ak man. dafa xaw a indiscipliné quoi euh, nga déglu nag maa ngi déglu yéen nga ñëw leen euh, fan la ñuy ñëw. dama tàmbal rek fan la ñuy ñëw. waaw ah, foofu baax na. Ah. rabata kenn ki dem. Cheikh taxal ngay lan yow. rabata dal bi la talkin dambax ki dafin urambax tatakin urambax dam dam nekk ci man te bàyyi kii waaw dégg nga moom rabbi jabar kii da xam waaw mais kaa ci man grand talkin sama la la euh la yow yaay nokk sëng maa nokk nga xam nga nokk nokk xam naa ko toog ba léegi gisoo ay maire lii tëggu maire la booy fa la ko yori rab ñun ñun xam nga lan la ñun tëggu loo am ndëpp waaw mais booy lii du ndëpp moom moo yow lii nu lii nu mu tudd. nokos laa la mooy nokos. waaw nokos. waaw ah, bii mooy nokos. waaw boo xam ne da ngay laajte. da nga may wax loolu mais wax nokos nga bëgg ko. non dama dama lii rek bàq yi may lii rek papa. nokosal. gannaaw bi neexuma neexuma mais yow yow gannaaw yow yow yow gën a jinax nga yow. Eh, kii gën a jinax la. man ma fa yàlla ma koy dóor léegi. non non man waaw man yow man damaa xamul yow lan la quoi. kan ngay dóor eh, yow. eh wuy ma. waaw yow waaw kaay leen nag ma wax leen. ba du lima len woo naan leen jàngal leen may bakata ngeen bëgg ma ya nare li dama ma door laa rek li ngeen man man naa ko raw cheikh mais bo fi nek dina bëtu rek ay xala lañu wala ñu woon woon kon wala ñu woon rek laa kan mooy réglé yow eh man duma sa morom de wa yow wa deggal li ma la wax du sa morom la la barki wax déggal li ma la wax et et yeen man mako def man mi len di wolu nan len kay len jangal ma ay bak man mako def wacce sama personnalité et puis yow dam yow lan la yow yow ba nga mën a sëgg ba léegi xale jigéen ñi topp la ba léegi yow yow dëgg dëgg maa siñ fan. bës ah wah kau yéen a ma bës man. waaw yow mooy yow may darah lah kamu, darah. Darah lah kamu. Oh, tuh. Ini mau banyak waaw Eh, kamu ma eh, bañ a may. xamul dara nit ñi dañuy ndax yéen ah yéen nee naa leen ba tàyyi salaam bàyyi leen kii ndax yéen ay doomi buur géwél ngeen mbaayam mooy seen mbaay. loolu leer na ma nañ. man du ma géwél kon man. booy waxuma ak yow salaama na yam yow salaam lan la. nekk si biir di waxtaan maam daam. Mhm. mu toog fii. fi tëgg moo xam ne kenn xamul ay rab lay tëggal kenn xamul ay dëpp. dëgg mu woo ñu ñu déplacé wu ñëw fii. Mhm. ndaka tam li ma gën a métti sax si gannaaw bi mooy li muy nekk ci kër gi yëpp di ñor di affaire ru ndaanaan ndakate gannaaw benn bàkk mënu koo jàpp. mënut ñu koy joxe bàkk nangu ñoo diglu. waaw jërëjëf léegi salaam jël leen mbalax meeg tool meeg yëpp ngeen dem yeggale la ngeen. nga moom ñu beneen yoon bu dem leen rek. Eh, eh. daam yóbbaale baal toolum jàmbur bu fukkee ñun ñooy for. nga de bu salaam yóbbaaleel galañ am yóbbaaleel galañ. yow eh, yow yo yow père yow. munoo baal baal jàmbur yi. waaw mais yow yow yow père yow père yow lan la. xam nga lu mu doon. booy yow booy yow rusloo ma de. waaw ah, non lan la yow lan la. yow boy yi ay gewel lañu ah kon man dama gewel man man lol leeruma kam ka yow nak ya dem ba mag bas waaje sax fune fune karaw génn fa ci yow ak ah, nek la nga juddul ba tay yow ndekkee ab sar muno ah, parce que boy bu nek ci kër gi di tëggalu nice yon la suma ma programme ñu jox may yi man leen jox leen may mais du kesso ko na ma ñak ba ñi kon kay yow da nga xewi ci jamono tay ipi yow per ko saytane nga ku saytaane nga ñi samay rakk lan su wax ak ñom sa ci saytaane nga ah. mais yow booy ba nga juddoo ba toll nii nga mu munoo fexe fexe ba mënum tëgg am tëgg rek ci doomi géwél géwél ju toll na yow. di nga juum juumati. doomi géwél ju toll na yow. yàlla rek du juum. merci ah wax ak man man man man kon du ma doomi géwél man. loolu leeru waa dama la wax rek du ma doomi géwél ma. waaw bu ma doonee doomi géwél di tëggal lu nice booy dañ ko war a apprécier parce que bi ñu toogee fii damaa tëggal lu nice dañ maa waroon wax grand li nga tëgg nice na. li nga tëgg nag gàtt laa xucc dégg naa la yow fi ne tëggum dëpp laakaan sax moom nga doon tëgg ñooñu daanuy rab beneen bi ci des yow ba nga demee ba yàlla dogal ngay jàngum tëgg mënoon ngaa dem ci Aliou Mbaye mii. Aliou Mbaye ndax kooku mag la waaye xale yi buñ la dee jàngalum tëgg mbaa nga dem ca layti gi sa mais mu jàngal lam tëgg ah wala sax eh, kër Ibrahima ñu gi gii Cheikh Fall ñi nga xam naa moo la gën a jege. ndeysaan ah ndeysaan léegi man damay jéggi Père Mbaye mi nga xam ne moo ma jur def fi jaloore gu ne léegi Père Mbaye bu la mun ta jàngalum tëgg nga dem ca ñooña yow do yow fi ne ni da nga gennu xet xet xamal lan laa lay xamal na njëkk tay na muju tay li nga ma def bu ma ko defati pépp yow yow léegi tay damay régler say mbir parce que yow yow père man lima ma jaaxal ci yow ben affaire la yow ma ngi dégg sama papa nan père ibrahim Ndiaye tama père ibrahim Ndiaye tama mais yow bi nga fi ñëwee ba léegi gisuma la nga yor tama. kon man say mbir jarna li lijjanti. déedéet man bokkunu de ndax man mamay may tëgg ngi ci tubay di dem jàkk. Eh, man bokkuma ak yow papa dama lay wax rek man fi ne dama araare ci da na fi wa baxna na bokkuma ak yow. kon ma bañ may daa may dégg man dama ara retraité man. nga doomi sar yow yow imbécile bi man bamay tegg yow ya yaa ngi di dem jakka bay boy bi wax na deug de man tamit tamaja dama ko faté ko mo man lum dina on deug de bo ba léegi de yëndu mo tam. gërëm jaay tama dinaa war yor tam